nga xam ne bañ koy interview ëllee mu kaala boppam bi wala mu musóoru waaye mbaxane bopp marle la jël teg ko ci bopp bi tox ay dënil tox ay dënil cigarette bu yàgg bi la tox ba tuñi écarté muy ñuus ñuus naan waaw man sama doom ji man doom ju ma am naboo ma ci gënal man doom ju ma am naboo ma gënal baatu jigéen man doom ju ma am naboo ma ci gënal nabu waa kii papa wax wala yaay ji mu naan ma yaayam sambra kuuse bi moo ko daane lal waaw lal bi moo ko daane lal télé bi moo ko daane lal meeru bandi boobu xam nga ni boo juree reykatu nit lay doon cim yow nag doomu nabu léegi xaw ma princesse xaw ma yow li la dal dafa bari sa maam bandi la sa yaay bandi la sa papa bandi la yow nga judd nekk bandi bu ndaw nag sa gémmin googu sa bëñ tegloo yooyu ngay ñuu sa mel ni ku seex sombi pont yaay dugg ci commentaire yi naan sama yaay deful dara tonton Aziz kan moo ko ray sandaya ko rey yow princesse ba yaay dugg commentaire live boo gis seen ko dugg fanaan bàyyi leen suma yaay man sa je suis fier de ma xale bu ndaw am 15 ans heure bi waral la fekk ngay jàngi ñu ne la sa ndey criminel la nga war a làqatu nga toog ak tuut say ween def say bëñ ngay ñuul sa mel ni ku log bulet bu tàng ak sa kanam googu mel ni kokorong eh dama bëgg nga tëj sa cot wi te dëju sa ndaye fi tëgg lu mel ni talaatay ndeer sa ndaye fi sangoo bayre boo xam ne heure bi mu koy sangoo baaxul xaw ma na bu lay ku la jox bayre bii nga sangoo waaye du bayre bu baax bayre bii nga sangoo moo la xettal nga rey nit waaye doo dootoo ko defati yow dugg nga ni ma rubba jubba ma fekkoon dammel ma bëtër njaay ma fekkoon dammel tëgg ko pes yow lay lay juróom-ñaari fan maa ngi fi du Dubaay taluma lekk taluma naan taluma wëri ji jëndi or démb rek laa génn jënd ji sama or yi taluma yéeg ci éléphant yi taluma dem ci ci sato yi taluma ambiance taluma def dara ndax rey gii ñu rey Aziz bala metti gi ma metti ci sama biir xol bi mu mel ni Aziz damaa bokk ak moom ndey baay mu mel ni man la ñu rey ndaka te yow doome xaram ji capable coupable intégrité am fit am am ñeme ragaloo dala nga ñàkk sa ba mel ni benn dëmm buy jël benn ci ndayam yaa ñàkk jom sa loosu dëgër wi ngay ñëw sa mel ni ëmb fóot ngay mel ni bërigu diwtiir capable la tax nga dëgër gat dëgër xol sa doomu ndey sa xarit ki nga ne danga koo bëgg fu mu taxawee démb ba tey damay seetaan vidéo Aziz waaye damay jooy saa bu taxawee ne nabu sama doom la nabu dama ko bëgg bu la Aziz di wax mbaa ngeen ànd yaag Aziz yéen a ngi taxaw mu lay xool di reetaan démb dama doon seetaan benn sabar goo xam ne da ngeen dugg nga sol bu la Aziz ñëw taxaw yaa ngi fecc mu lay xool di reetaan tikkalaw bi ñëw taxaw ci ginnaaw nga xeelu tikkalaw bi ma ni ko caga nga doomi xaraam ji yàgg ngaa xeelu yàgg ngaa bañaate yaay yaay buñ lay interview nga naan man ñu ñenee nañ dama réew te réew ma damaa am fulla yow ndakate bànni nga ndakate doomeraam nga yow lay-lay ndakate wuyu nga ndakate gajangeer nga waaye tu vas subir lee conséquence du Aziz dafa dee nga waroon yuuxu nga ñëw tiim ko waroon a dal ci kawam yuuxu nit ñi di la filmer jooyuloo tey nag dinga jooy lay lay nag yaa ngi soog a am loo jooy sa xol bi lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër tey di jooy yow premier jour biñ la fanaanalee rëbës ba tëj buntu yi ci sa kaw ba nga ne rap di nga jooy parce que la mémoire de Aziz va venir ci toi yow mémoire u Aziz mooy ñëw ci yow esprit am na ñoo xam ne boo leen rayee sa esprit seen esprit du dem am na ñoo xam ne boo leen rayee seen esprit bi du dem seen ruux du dem dañuy ñëw di la feeñ yow da ngay tëdd souffrir france boobu da ngay tëdd muy yuuxu ci sa nopp yi yow loolu rek di nga ci jooy bay bëgg a dee ñaar di nga jooy ndax kaso boobu ñu la tëj miinuloo ko caga nga caga bu daan rëcc bandi nga bu daan rëcc nga bu daan rëcc waaye fii ñu la dugal nga fanaan fa àddina bépp di la coow di nga jooy di nga jooy ndax sa ndayu bandi boobu dootul lekkati dootul naan di nga jooy ndax sa doom ju capable googu di nga ne fan la te xam nga ne sa doom jooju yàq nga laay fam ndax xam nga ni benn famille bu baax benn nit ku baax du jur sa doom ju góor bu baax yar ko fam ko yaree dem naan ko demal nga takki ku muy takki ñu ne ko organiser woon crime bi gën a rëy biir senegal doomu nabu Leye yaay doome raam lay lay yaay doome raam yaay bandi li ma wax démb ci laay fu Kalifone Sall ne chapeau à Ndeye Gueye yow tey li ñu naan chapeau à Ndeye Gueye yow mii la waroon. ah Mbaye ah, Mbaye. dagguma la nag sama téléphone bi yàgg na lool Pikine la jóge kii ma woo téléphone ak Nabou lay ñoo jàkkaarloo kër fenk na cant ga na mu demee woon nee na ma lépp laa lay wax ci ni mu demee parce que bugguma ko wax ci télé bugguma ko wax ci média yow ni nga sonnee ci kombaa bi moo lay moo tax ma lay jox bu gën a source bi te bu gën a wóor bi ma ne ko ah sëñ bi li gën a source lu bari wax naa ko de mu ne ma noonu lu bëri wax nga ko mais dama lay nettali scénario bu ndaw te dara du ko dindi léegi nag nee na bu ma tudd mais man naa nettali li ma wax waa ndax dinaa jàpp lépp dul kat bu mën a capté nag mooy Adamo léegi da ngeen di déglu ma wax leen waa ji li ma expliqué nee na ci cant gi la xeex bi commencé cant gi ci la xeex bi commencé. ba nu jotee ak Abdou Aziz Dabala dóor ko ay seize léegi Nabou Leye moo dugg ak Abdou Aziz laa ci taxi bi loolu waxoon naa leen ko mais da ko yóbbu hôpital avant muy dem këram hôpital lan jaar hôpital bi nag Dominique la pikin la nekk mais kenn entré wu ko dañ koo consulter rek déglu leen bu baax hôpital bi Dominique la Pikine la nekk mais kenn entré wu ko dañ koo consulter rek mu dem léegi ba mu demee dafa ñibbi seen kër ba mu ñibbee seen kër ñi mu joteeloon ñoo woo Nabou Leye ne ko ana Aziz bëggu leen koo wax mu ne leen Aziz ñibbi na ma këram léegi nag kër ñoom Abdou Aziz Dabala ñi mu jotee leen jotuñu jékku-jékku ñu nag dem fa de ñaari nit ñoo dem seen ñaari xarit seen ñaari xarit yooyu nag arrangement moo leen fa yóbbu woon maanaam ñi mu joteel ñu ñaari xarit yooyu arrangement moo leen fa yóbbu woon ba ñaari xaritam yeggee waali moo leen ubbil porte bi ñu toog di arranger ni ñu toogee di arranger ñoom ñaari xarit yi ñoo yëkkati seen téléphone woo groupe bi nga xamante si woon groupe bi xam ne ñoo joteeloon ak ki nga xamante si nii moom mooy Abdou Aziz Dabala ca cant ya ñu ñëw waali ubbil leen waali gis na leen ubbil leen mu dem liggéey ba nekkee foofu nag di tux seeni boot ak seeni sisaaw ak yooyu ñuy arrangé arrangement bi sottiwul ca la xeex jàppanteeg moom rey ko waaye ba nu ko reyee ba pare danoo woo Nabou Leye ne ko jëwal Nabou Leye ba mu ñëwee ci kër gi dafa tim Abdou Aziz Dabala mu dee mu yuuxu wuy sama ndey boobu ngeen doon dégg première yuuxu bi première yuuxu bi du Aziz nabu Leye la nee na première yuuxu bi Nabou Leye la du Aziz Nabou Leye ba mu duggee nan ko woo mu fekk Aziz dee moo yuuxu ne wuy sama ndey ñu ne ko boo waxee dañu lay rey menacé ko ne ko boo waxee dañu la ciy teg te dañu lay rey première yuuxu bi Nabou Leye la léegi nag ñu menacé Nabou ne ko messageal booy bi mu wàcc nabu moom message Nabou Leye moom message euh, kii nu mu tudd euh, Waly ne ko ñëwal ci kër gi Nabou Leye yor na caabi Aziz yor na caabi euh, Waly yor na caabi léegi Waly ba mu wàccee nag ñu ma Nabou Leye moo message Waly ne ko jëwal ba mu ko message ba Waly jëwee ñaari jam-jam lan ko jam fii léegi nag Waly daw di làqatu ci salle de bain bi pour tëju fa keneen ko fekk ko fa jam ko rocc ko fàqat ko moo waral xotti yére bi ki ma ko wax Pikine dëkk de nee na ñoo jàkkaarloo kër léegi laa ko pépam léegi laa coupé boobu léegi waa léegi tëjal ma ñëw. waaw léegi damay daaneel damay léegi nag nee na bu ngeen gisee xotti yére bi yor na lépp léegi bu police demoon këram dafay fekk caabi kër Abdou Aziz Dabala ndax yore na ko léegi na bu lay nag looloo waral mu woo fereeram bi nag ñëw ne ko nan dajee kër Aziz nan dajji bunt bi jiitul parce que xam ne lépp première yuuxu bi na lay la parce que nanu ko menacé. dafa ñëw gis gis Aziz rek daal di wuy sama ndey ñu ne ko boo waxee dañu lay rey moo message waali waali wàcc ba waali wàccee dugg si ñu jam ko ñaari jam-jam waali di daw di tëju ci salle de bain bi keneen ko fekk ko fa jam ko fàqat ko ak yére bi looloo waral xotti yére bi lii la nettali waxaat naa ko maayee jëlal jëng saala waynde saala corooma jigéen mu seburi déggan kodd mi daano gile doomu selbe borom jabaru indo bi ci itali chaque jour nga nàmpal ñu nag te loo ñuy nàmpal day tegu ci taak heure waaye lii nga ñu nàmpal bu yaboo nga jëlaat ko dugalaat ko ca ween wa mu jugee te xam ne amul benn sens. moo ma ko ma déglu te jël micro bi dama ne. waaw waaw. damay Dubaay laa nekk moo tax. waa jii la nettali moom bu deful attention. dinañ ko jël si moom mu nekk neuvième. <laughs> waaw mën naa naa nekk. histoire am bii bu deful attention dinañ ko jël si mu nekk neuvième c'est pas logique. waaw. waaw. lii mu nettali c'est pas logique te am xel du ko dégg dama ne. Nabou lay ci boppam. bis bi du ci silib caaya la ci. ni ko Kaliphone di waxee. xam nga lu ñu bëgg. mais mais nag bàyyi mën naa nekk mën naa nekk tamit ay mbokk la foofu laa jëm tëjal. mais waa ji nag waa ji nag ko xam loolu problème bi ma dama déglu waa tëjal micro sama version yi ma njëkkoon a moom dama waa tëjal micro bi ñu ne écho bi. acca dama ne. su doon koo xam bu la waxee da nga koy gëm. ndax da am ci moom confiance kon tey nabu lay du rey Aziz <laughs> parce que ni ko Aziz xamee xen xameewu ko noonu xam nga lu xew ñoom dañoo daanu fi ne daanu gi ñu daanu mooy bi coow li amee ñoom ñu xam li ëllëg ñu génn wax ko waxuñu ko yàgg ngaa live ñoom pikin gépp génn di la di la menacé di wax wax yu rëy di la saaga kenn génnul ne la problème bi nii la demee xëy na bu doon nii lañ la ko waxee moom mii wax naan sa xarit la su doon moom sincérité gi muy wax mi ngi ci yow kon boo ba nga taalee naan labu léegi ñu naan aadamoo waxul lu am wax na lu am day génn yoot ndànk ne la aadamoo sama nit nga problème bi nii lay demee waaye moom mi ngi xam yëf yi ni mu demee mu denc ko ci poqotaanam bàyyi ba nga xam ne juutambaay loo réeree bi cërëg gësam ak dogu yàpp moom laa réeree bi gësam wure wa jëm na këy mu xam ne dara safa saxatu ci ñu génn ne dañuy rafetal deru nabu lay nabu lay dootul rafet ilaa yow mi di nabu xas na ba yàqu la ma moo jëng naan saf na ba saf na ba noppi kenn du sàppali a rafet a mën a kecca a mën na mese naa ama la maayoo naa picc ba ca róorum saf na ba noppi dama ne nabu saf na ba noppi kenn du sàppali Nabou Leye nee naa la suñu tëjee xale yu góor yi cinquante ans Nabou Leye à vie lañ koy tëj te di ngeen ne waxoon naa leen ko Nabou Leye suñu tëjee am na foto yu ma la yónnee bàyyi leen foto bi ngeen di yoon géet dugal ndax xaw na rafet génneel leen ma photo Nabou Bandé mi yónnee naa la ko WhatsApp. waaw ba muy génn ak ba muy génn ak Aziz tamit photo yónnee naa la ko. ba muy génn ak Aziz photo yëpp naa ko bi mu defee bi mu defee ci boppam bi. si ñoo geenu fas bi te te fàttee jënd zel bu doy ñàkk jom yàgg ndóol yàgg wala kaana dama ne la yow kaa bii dugg nga ci dootoo ko defati yow nee naa la kaa bii dootoo ko defati ndax yow tooñ nga ñëpp xool ko akay ay doomeraam xool ko muy mel ni góor jigéen ngay mel ni góor jigéen bu solu bu solu bu solu traversé la yàgg bëgg góor yàgg caga mm-hmm. Mm-hmm. dafa yàgg nopp Aziz Dabala da koo nopp boo demee Aziz da ko daan defaral yàlla na ma yàlla baal te jéggal ma xool ko. boobu leen lii doon dégg noonu ak ak kii moom bii moo ko fa daan yóbbu moo naa la Adamo Nabou Leye bi da koy chargé juge bi da koy caaj rey gi abus de confiance bi libre fiant yi mu daan indi ci kër ga di tëdd góor ñi yamba bi mu daan tux. lay lay lépp dinañ la ko chargé yamba bi lubrifiant bi nga daan jël munoo ko képp moo tax ñu videola nga jël sa tànk yi ko noonu di uppaa ngelawal jàmm yegg si na doomeraam ji dangay jaay bëgg góor rek dinañ la yóbbu campenaal lesbienne yi màccal la ba nga tas ñu jël la yóbbu la chambre neuf ak chambre quatorze sa cent xale yu góor yi di la relais yow dootoo ko defati lay lay da jaay doomeeraam di jaay caga nee woon naa la yow bis bu ñu nee verdict bi lay lay ci la bokk dinaa la tëggal birsi boo xam ne dinaa la tëggal direction la Adama ñëpp lay ba dama ne la tey ñëppay abonné direction 3 millions yaa ngi def écho de Adamo su may wax da ngay tëj mu bañ a def écho. acca kon acca kon. dama ne yow lay-lay cas bi dama la waxoon mani la parce que commencement bi dama génn di la défendre ma imaginer ci sama àddina xam nga man dama baax. man dama baax sama xol dafa rafet te man du may gis lu ñaaw du may wax lu ñaaw du may def lu ñaaw moo tax bi yëfi génne sama xol bi dafa dem ci yow ma ne nabu munul def lii mënuma koo imaginer ku ne di yéeg naan ma pambaay wax nga dëgg naboo ngi këram tëdd nabu du rey yoo nabu du def nangam nabu du def nangam mu gi ñu naan pambaay lu muy défendre nabu lay xanaa dafa xam lan moo xew Pape Mbaye xanaa dafa nangam Pape Mbaye xanaa dafa nangam ñu ne di ma saaga ndey ma ne pat booba xalaatuma woon ni lii dina am ndekete yow doomeram jee njaay ku jaajëlin tëgg nga li ngay tëgg dangaa tiit tiita tax munoo jooy tiita tax ñu woola ne la sa xaritu benn bakken dee na koo xam ne yàgg ngeen ànd dama ne yéen caga fecckat yu ndaw yii dangeen di topp góor ñi xamu leen bu ñu bojj xamu leen bu ñu bojjul ay caga ngeen man amoon na artist bu ma toppoon amoon na artist caga bu feccee ba naaw ñëw topp ma mbaaya ma ne ko dimbali ma bul ma tojal mu ne ma ay ca su ma ko rëkkee ba mu mel ni talaatay ndeer fu mu dem ñëwaat caga ngeen xamu leen bu ñu bojj bu ñu bojjul da bëgg góor ay doomeraam ngeen moo ci bari dama yàgg ngaa topp Aziz la jël Aziz xëy na yaa ko bëgg waaye bëggu la nga bëgg a jël yëfi nag def ko o sérieux ba moo la jural yëfi doomeraam yi nga def parce que lii du rayu xaalis lii du rayu nañ leen dem dañoo xeex après nañu nañu nañu dem vengeance li du rayu nañ leen dem toog waxtaani lii rayu een la rayu een nee naa la yow lay lay li ñuy wax naan dañoo rey ba pare nga ñëw yem ci fekke ko yaa muur Aziz yow nee naa la bi wuyu yi rayee ba pare léeg-léeg bi rëy wuyu yi rayee ba pare woo la ndax yaa doon communiquer ak ñoom bañ la woowee ne la rey nañu Aziz ba pare yow nee naa la ba nga duggee ci kër ga da muri Aziz ba pare saaga ko ndey ne xaax ne ko ko tëf ne ko xamoon naa dinaa nangam taan sa ndey doomeeraam nga nga def sa gerefaas bu ñepp ndayam bi mel ni njàmpe ñax sa puudar bu xonq bu ñepp ndayam bi Sénégal coupable bu bon la mu ngi nii léegi xaaral te léegi nag bàyyi dama lay dugalaatal beneen bu xaw a modd bi tuuti nga wax ci greffage bi. aca mbaaya aca naa la greffage bi démb doon naa ko wax xam nga amoon na taaja boon bu fi amoon 2004 ma war a taaja booni booba maa nga fanaan kër ndey gay ndeysaan gor su baax si doomi abi puy ji ak liwis Guèye borom xol bu rafet bi yaa jara àndal ndey Guèye yaa sincère yaa mun sa nit billaay yow kuy jàpp na nala jàpp ndax yaay gor ndey Guèye yow Faatu Wore Umu Saw kuy jàpp na leen jàpp ay gor ngeen ndey Guèye Faatu Wore Umu Saw kuy jàpp na leen jàpp keroog ba taaje boon amee ma war a dem taaje boo dama ñëw ne ko Ndeye Gueye périg laa bëgg Adama tëjal micro bi mu ngi def écho ma ne ko Ndeye Gueye laa bëgg mu ne ma ah ma ne ko dama bëgg a dem taaje boo ne mu ne ma mbaaye duma la jox sama périg yi ma ne ko léegi abal ma seen seen mindaan bi gis naa mu yor périg abal ma ko Ndeye Gueye dem ci seen mindaanu joolaa ba mu génne périg ba périg baa nga mel ni mbomb soloon ñu may woowee Katusha ba ma gagné concours ba ca kasino ba noonu la Nabou Leye di nurool doomeram bi sa périg bu ñepp ndayam bi périgu yaayam la sol nii périgu yaayam la sol yàgg bëgg góor yàgg capable yow neewoon naa la coow li da ngay toog 100 mètres yow doo tëddee campenal doo fa tëdd ci jàmm yow da ngay toog bal yi di la fekk campenal nabu Leye naqar gi nga teg sénégalais yi naqar gi nga ñu teg naqar gi nga teg réew mi. teg ko gàllankoor yi sponsor yi bu la duggee da ngay pause. sponsor yi King saaliw dugg si na King Saliou live bi tey ni mu tàngee nii moom bëgg naa nga maye fi benn 4 millions francs CFA léegi nag gars yi dugg leen ci telegram ki 3 millions. waaw waaw. <laughs> saaliw saaliw laa ilaha illallah king yaa bëri doole nag eh wuyu ma nag gaay wan leen seen doole king saaliw officiel dugg leen sama bio tiktok ngeen laal link telegram bi gaaw leen loolu rek ma wala ma dagg live bi non mbaaye tey damay arrêté dugg leen sama bio ngeen laal telegram bi ngeen abonné dugg leen sama bio tiktok ngeen laal telegram bi ngeen abonné ko amul telegram demal télécharge ko nga laal ko léegi nga abonné lool laa bëgg gis sama tiktok bi ku ci abonné wul tamit abonnéel mu àgg 3 millions followers waaw direction 3 millions followers mérito naa ko man 3 millions. waaw ba fii ak ngoon bëgg naa am 3 millions ndax man bu ma amee 3 millions seen sag la man man sama sag la parce que maay toppukaay yi maay lijjanti information yi maa koy indi maay son ci Sénégal lu ne mën nga ma koo waxal de. bon na day saaga ndey dafa nangam mais man ku bëgg Sénégal la bala nga koo xam ñu ñu laal doomu sénégalais wala doomu sénégalais am problème ngeen gis Adama taxawaay bi mu ciy taxaw man ku bëgg Séné Sénégal j'aime Sénégal man sama dëkk dama ko bëgg loo ma waxal leneen yaa xam mais man ku bëgg Sénégal laa waaw léegi nag. léegi nag ma ni 3 millions abonnés yooyu tëjal micro bi. jeex na jeex dafa millions abonnés yooyu mérito nga ko. man de sama deux cent quarante mille abonnés yii suma la ko mënoon a dama la koy jox ndax man doyewu ma ko dara ah man man doyewu ma ko dara di. ay mbaay tëjël rek waa tëjël tëjël micro bi tëjël micro bi man sama deux cent quarante mille abonnés yii doyew ko dara ndax man bu ma TikTok mayee buñ ma mayee kado sax bu ma paree TikTok daf ma naan am nga fi cinquante dollars am nga fi trente dollars te boobu ba tey jëlu ko te yow mii yaa tax ma ubbi TikTok yaa ma xamal TikTok yow TikTok bi dañ la war a demal ba sept million abone Sénégal dañ ko war a foqati ci loxoy Jomaay Fay jox la président bi ne la jiiteel est-ce que xam nga yaa waa dik est-ce que xam nga waa dik parce que policier yépp a ngi seetaan Adamo yow yaa génn ñun ñuy défendre Nabou Leye ñun ñëpp. yow Aziz deena nga waroon taxaw naan nit ñi muñ leen. mënatu leen jooy ba yëfi am yow wax jooju yow lañ ko waroon a wax ñëw na la nabu Aziz deena seetal ci yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiqun nabu bakken bu junn ñam dee nabu nangam ak nangam yow nga taxaw bi tataj tëj taa avancé googu bas cum fecc ci lañ koy avancé ci yow yow gis nga li ma la bëgg a wax lépp li ma la bëgg a wax lépp maa ngi takk sama di jóge Dubaay di dem Amérique bala ma la koy wax foog ma egg Amérique yow aéroportu Istanbul bi may dem fa lay taxaw jàkkaarloog yow defal la live bu mel ni njërndeem yow dinaa la tëggal live fu caga lay fu lesbienne lay fu góor jigéen lay fu dëmm lay fu nguunu ngaana lay fu xuuge lay fu puuna ñépp lay woo nabu yow tu ne vas pas rester in peace reste in peace moom yow doo ko bokk Aziz moom dina rest in peace Wally des in peace doo rest in peace sa famille duñu rest in peace sa njaboot duñu rest in peace sa doomit du res in peace parce que bàyyi woo ñu ñu res in peace nabu da nga def loo xam ne ci histoire Sénégal bandi bu ne jaar na fi Inoo jaar na fi Alex jaar na fi Papa jaar na fi Buuba Chinois jaar na fi ñoom ci ngës jaar nañ fi ñépp jaar nañ fi waaye yow nabu li nga def Sénégal kër rey sa xarit dabul meurtre boole ko jam-jam yu metti yi nabu yaa soxor ngay ñëw sa mel ni mbaamu première communion te ba avant Aziz di la génne yaa ngi mel ni saxu duus tapoté leen écran waaye mu àgg a ngi ci quatre millions nga fay live bi mani bu ñu tapoté wu nga fay live bi ay dulkati ndaanaan lañ lu ñu nàmp la ñuy wut te ñoo leen di nàmpal nañu tàppate nañ maye kër nañ la jox kado man bu ma kenn jox kado parce que man du may retiré kado yi jël leen kado yi ngeen jox ko aadamoo aadamoo xam na niñ koy retiré man bu leen ma jox kado bu leen ma jox fleur jox leen ko aadamoo dama ne lay-lay yow dama ne la yow doo rest in peace yow doo nekk ci jàmm cent mètres googu nga ne da ngay tëdd ñu ne na bu tëj nañ ko à vie dara safu la buñ la bàyyee nga toog yow kese du la day neex lëy-lëy coow lii dañ koy coow ak yow ba ba ba décembre deux yow dañ la war a perturber parce que dangaa perturber nit ñi bi la Aziz di jël di la defar nga tilim didim waga xasaw xunn xeeñ xunn sa yaram wi mel ni yaramu bar ak bu jasit nga ñëw ak say didim mu dindi sa didim sang la raxas la dindi sa pokotaan yooyu sa sa xar-xaru taat yooyu nga xam ne dangaa teel a tëdd tëdd nga ba infecté nga xam ne ku ubbi sa xarxaru xaru taat yi fekk ci baaru natatu Aziz jël lépp defar ko raxas la ba nga set jox la nga lekk ba ngay ñëw ci Aziz dangaa ñuu sa wow ba mel ni saxu duus mu defar la nga lekk nga mel ni mbaamu première communion ngay mel ni nag yooyu ñuy yóbbul sa ñu ñu waa kër sa waa kër cant ku ni di yóbbul euh, sëriñ bu ñuy kii ah Aziz daf laa yar ba nga màgg liñ naan ku yar sa kuy ba mu màgg ba lay mbëkk kenn mbëkk la yow dama ne la Aziz mii nga mbëkk dootoo ko defati naqar ji nga teg yaayu Aziz ak ni yaayu Aziz ku ko xool xam ne maire bi ku néew doole la maire bi mag la maire bi waxuma xaalis bi ko Aziz di jox maire bi waxuma alal ji ko Aziz di jox maire bi waxuma dimbali gi ko Aziz di dimbali waaye maire bi ba mu waxee melul ni sa yaay sa yaay dafa matrice sa yaay dafa matérialiste sa yaay dafa bëgg xaalis sa yaay bañ ko laajee loo xam ci lëy-lëy dafa taxaw baat bu góore bi naan waaw sama doom la sambura kuuse la ma jëndal moo ma lal bi mooma ma jëndal bi moo ma jëndal nangam tox ay excellence ak ay Marlboro ak ay Gauloise blonde ba tuñu ñuul caga bu màgget bi yaayu Aziz bañ ko dékkee micro bi dafa wax ci yiw kaalawu ëllëg mu ne Aziz may na ma lal Aziz may na ma xaalis waaye dafa ne Aziz de bu ñëwee ci kër gi dañuy kontaan ndax daf ñuy reetaanloo ñu ñëpp lay reetaanloo di ñu kafal ñuy reetaan yaayu Aziz reetaanam googu mu daan reetaan te kenn daanu ko reetaanloo ku dul doomum ju góor ji yow caga bu màgget bi yow doomu band bi yow doomu wuyu bi yow doomu gajangeer gi sa nday yàgg tux Marlboro yàgg tux denil yàgg tux Gauloise blonde yàgg tux Camélia yàgg yëy excellence biti kolaa bi yow nga taxaw nga jëli joie de vivre jël banneex boobu nga xam ne Aziz moom la daan def ci ndeyam nga jël doomu jàmbur ji jamono ko ba mu dee nga tiim ko ñëw taxaw naan waaw dama woo magu Aziz ne ko nañ dem seeti ji ma euh, Aziz gëj naa ko dégg dama la ne gëjoo dégg Aziz da ngay duwul xam nga fi Aziz ne rey nañ ko ñëw nga ba tiim ko ndax yow caabi Aziz da nga ko amoon appartement bi dañ la jox caabi. yow caabi nga amoon yow. da ngaa souligner point boobu important doo man lii laa bëgg kuy logique man ñuy logique laa mën a waxtaanal Nabou Leye amoon na caabi dëgg la. waale amoon na caabi moom moo yóbbu caabi kër gi ma daaneel rek ba mu ko yóbboo ba pare rek ci la wooyee fereeram bi dof bi papa naa kurus naan ko jiitu la kañ nabu kañ la mas a dem kër Abdou Aziz Dabala di tàggoo te mu xam kër ga miin ko yore caabi waaye naan ko jiitul ubbil salle de bain bi nabu lay yaa bon doxalal mbaaya xam nga yow démb maa ngi la doon audio di la wax waaye ñooñu ma doon wax ñooñu dañoo xam lii nabu lay séq ak Aziz Dabala parce man sénégalais yi am ñu ci bari danoo dof dangay ngay génn wax ñu ne pambaay de neena nangam te nit ku dee kenn du wax nangam kenn du nangama nàngam nabu lay dama ne la këram ga mu dëkkoon di fa fanaan foofu du woon këram nabu kër Aziz Dabala moo doon këram caabi la yor ñu koy jox dépasse buy toggal Aziz ëllëg mu yëkkati xaalisam togg ko waaye da ko naan jox ma xaalis Aziz yëkkati xaalis jox ko mu dem togg lëy lëy lëy lëy caga bi lëy lëy caga xaraamata njaay bi yow li tax ñu tànn la ci film boobu jox la rôle lu bandi ci théâtre bi danga ko nuru ba ñu laajee sa yaay ne ko rôle lu bi muy joué ndax rôle lu bi dérangé wu sa yaay naan noo dérangé wu ma xam nga rôle moom rôle la mais vie privée vie privée la mais rôle bi dérangé wu ma du ko dérangé ndax bandi la moom sa yaay bandi la jur bandi ñu jox la rôle bandi sa yaay kontaan ci sa yaay daan fat bandi bu bandi yi jaay jee seen yamba def seeni i bu ñu ñëwee madre piis min daan am mooy sa yaay moo tax bandi yi ñëw biiral la 15 ans bandi yi dugg seen kër biiral la te fii Europe wala Amérique ku fa biiral xale. léegi nag léegi nag foofu laa bëgg nga teg sa sa sa loxo parce que gis nga bàcc seeraas deful na bu lay dara ëmbal nag la ko def li mu def nu mu mel moom la bàcc seeraas démb message na ma waxtaan nan man ak moom nee na ma yow dama lay seetaan ku baax nga dama laa bëgg xaritu Tafa Burkina nga billaahi maa ko doon wax sa ne ko sa waaye te mu maa kii ci coow li kii ma ne ko amul benn problème duma la tuddati ndax yow defoo tinoo waaw te moom ba mu amee ak moom ba mu ëmbalee la ci pare doom la seq ak moom jeex na mais bàcc ku baax la barki yàlla vocalam yaa ngi nii bëri na ma vocal. waa déglu ma waaw déglu ma. bàcc seeraas lu ko waaye wax ci coow li tooñ ko est-ce que bàcc seeraas miñ ne moo ëmbal nabu leen est-ce que bàcc seeraas a jur doom ji nabu bandi la bàcc seeraas kenn xamu ko ci dara bàcc seeraas xam nga ci luñ ko xam bëre liggéey. am fulla am fayda man de xaw ma ko man dama koy dégg waaye man mosumaa dégg ci bàcc seeraas dara lu bon man bàcc seeraas bëre laa xam ci moom liggéey da nga ma mës a dégg ma tudd ba turu bàcc seeraas da nga mës a dégg ma ŋaaŋ ne bàcc seeraas man tudduma kenn bàcc seeraas dama ne demal nga defi DNA jëlal Julie euh, princesse ba moomu nga dem defi Julie DNA parce que xale bi nuruwu la xale bi susu lay xale bi bandi lay nuru te yow doo bandi xale bi nuruwul mbër nabu dafa capable mën naa ñëw ne la jur doom ji boo demee sax nijaayama ko biiral yaay ji ne ko jiin ko bàcc seeraas bàcc dama ne boo demee nijaayu nabu moo biiral nabu yaay ji xam lépp ne demal nga jiin ko bàcc seeraas parce que tey jii su doon yow yaa ko biiral mu am 15 ans dañ lay yóbbu police waa Pikine nag may wax ji ñaaw na ko mu mu arrêté boobu ma ne ko ok naa wax ak moom Mbaye tàggee kenn du ko téye. dama ne rusul tàgge du rus waa Pikine sawi leen te tëddi li ma ne Pikine kenn rek laa fa ñenn rek laa fa xam ñu baax mooy Malick ba mu dëkk Atlanta Moussa Yande ma dëkk Atlanta ak Seexi ñoom am metaki ñoom ah, seex ak ñooñu waa kër ñoom Zoli yooyu may fréquenté ñoom waa Pikine lañ duñ la rey duñ la jam ñooñu dalaa xam ñu baax ci Pikine dama ne bu dee tàgg bu dee rusul tàgg du rus su dee rusul tàgg du rus nabu lay jëf ju bon ji mu def jëf ju ñaaw ji mu def wax ju ñaaw ji koy wax a koy faj parce que bu ñu jotoon ci essence muy daw ñu koy këpp essence muy daw ñu koy këpp essence ba mu boy ñu jël ko ñu jël ñu jël sungu fam si def ko ci biteel waaye comme que mënuñu cee jot mi nga ca police ba nañ ko wax ay bal àdduna bépp di ko dégg Pikine di ko dégg yëmbal di ko dégg ginnaaw di ko dégg Icotaf di ko dégg buun di ko dégg syndicat di ko dégg benn baraag di ko dégg tali bu mag di ko dégg petit mbaaw di ko dégg grand mbaaw di ko dégg faas mbaaw di ko dégg ñëpp di ko dégg